sëriñ Moxtaar nag li nga ne xam ne xaasiyaam la mooy moom bàyyi ci bopp moo ko jàngalal boppam boole ko kenn am na fi nag ñoo xam ne bàyyi dafa am leen féetale ci ñoo xam ne ñooñu fi yoroon ay daara tam jàngal leen waaye ñooñu bàyyi dafa jàngal nit ñu jàngal leen sëñ maxtar baa lu mu xam bàyyi ko jàngal amul beneen sëriñ bu dul bàyyi te bàyyi jàngal na ko ba ne ko mbooleem loo xam ne Ibrahima xamoon na ko jëlee ko ci baayam xamal na la ko yow sama doom sëriñ Moxtaar te njàngaleem mbaay bokku la njàngale yi njàngaleem mbaay du la mukk ubbil téere bi te duwul daf la ko jox nga dem mokkali ko boo ko mokkalee ba mel ni faatiya mu ñëw moo lay nattul boppam ne nangam nangam nga yeggale nangam nangam nga yeggale nangam nangam nga yeggale boo boo defee loolu nag nangam nangam nga yeggale mu jaar la fu ne xam ne yu mokkal nga mu mu tëral la dars waaye bàyyi ci boppam jàngal na ko ba ne ko man Ibrahima amatuma lu may lay jàngal kon nag ñu xamee ci ne Euh, gis nit ku bàyyi jàngalal boppam ba wàcce ko ba ne ko mboolem lu ne ci man dem na ci yow kooku c'est une particularité beneen particularité bi mooy mënuñoo wax ne mënuñoo wax ne moo gën a tawe bàyyi parce que loolu sacrilège la ku ko xalaat it noppi rek waaye wax dëgg yàlla fu bàyyi yeggoon ci tawe sëriñ Maxtaar àgg na fa ci tabe ndax sëriñ Maxtaar sama séexandoo la ñoo maase suñuy ñaari baay bokk benn baay suñuy ndey bokkee noonu waaye euh, moom dafa ko nit ku dëddu àddina nit koo xam ne dara Do ko gis mukk ci turbine ba mu ñaan waaye diwa ngi ni doomi baay diwa ngi ni doomi baay mom mom du dem fu mom fi lay tok du dem fenn muy bërëm lijaaba boo xam ne lu mu wax yàlla nangu ko am na ay président naa ci tudd Idriss debi Caat fii la daan ñëw bi mu nekkee militaire mu ñaanal ko ne ko demal da nga nekk président mu ne ko aman ah, utuma nekk président man militaire la mu ne ko xanaa du man maa la ko wax demal mu dem yàggul yëfe am na mu wëlbatikoo ba moom mu nekk président te moom kenn ñu nga Buhari mi président Nigéria yaayam taalibe sëñ Maxtaar bii la Soudan noonu la fa bëree ay taalibe ca gouvernement ba ak ca borom alal yi ak yeneen ak yeneen daf doon nëbbatu nag coowam bariwul bëggul xumb-xumb bëggul àddina bu ñu dajee fii ni dooy bàyyi nañ ñëw moom du dem fi mu toog rek lay toog donc benn nit bu spécial yàlla boole ñu ne naa la daan nañ jote jote xalel ndax ñu bokk daara jote bàyyi ña bu jógee man lay faral boobu nag moom mu ëppoon doole léegi mu néewal ma doole ba benn bés euh, ma ñëw boole ko bàyyi xamoon nu kii rek mu kii rek bàyyi téye ko yëkkati yeet yow mu yàgg mu tëral ko ne ko ah man man mi leen bokk jur sax xajuma seen diggante dem leen noonu lañu àndee ba bés ni tey dee rek moo ñu tàggale doom yaa ngi nii li ko dalee ci taaw bi ba ci caat mi walilahi alhamdu tuddee na ma doom tuddee na sama yaay doom tuddee na sama baay doom kon nag loolu dara mënu koo weesu dara mënu koo weesu fas naa yéene yéene it ànd boobu ma àndoon ak moom ma continuer ko ci ay doomam ak soxnaam ba mu ma koy fekki bu soobee yàlla duñ jooy dara duñ manqué dara te ma ne fi incha allahu taala sëriñ euh, maax mi nga xam ne mooy xalifa bi nga xam ne wax naa ko ne ko yow ku dul bàyyi rek yaa ko ëppale ci sëñ Maxtaar mooy mu wëlbati ko wax ma ko ma ne dee yow laay wax ne ku dul bàyyi rek yow yaa ko ëppale te loolu ñëpp ko xam gone yi xam nañ ko mag ñi xam nañ ko ñëpp a ko xam kon nag tey pays bi euh, manqué na koo xam ne buñ amuloon yaakaar ci doomam yi kon danañ jooy waaye doom yi suñuy doom lañ mais suñuy nawle lañ te ñu ñun ñu leen weg lañ te ñu am yaakaar ci ñoom lañ te yaa te xam nañ ne duñ tas suñu yaakaar incha allahu taala kon mbir mi walilahi alhamdu ñun suñ doom yi la ñuy ñaanal yàlla may leen fan wu sut seen fanu baay ak seen fanu maam ba lépp loo xam ne suñ moxtaar bëgg na koo faj mu faju